mbokku téléspectateur mu fàttali Bichri International ñu ngi fii nekk ci exposition bi nga xam ne daara Hizbut Tarqiyyah ñu ngi koy amal ci màggalu Tuubaa gi ngir wane mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax xam ngeen ne Serigne Touba dafa nekkoon koo xam ne nii xam-xam daf koo soxal waaye itam xam-xam dafa nekk am euh, place bu am solo ci yoonu murit ndax euh, wax na lu am solo ci karaama ci xattu yar yi mais zakri demeure mais miracle kon loolu bu ko waxee rek day mel ne mbindam mi teg na ko fu kawee kawe te kon murit yi euh, sant na leen ñuy sàkku xam-xam looloo tax nag fii nga xam ne mooy euh, daara Hizbut bi nga xam ne étudiant murid yi euh, ñoom ñoo ko yor euh, di fi amal ay exposition ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul si jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lépp rekk ci wan mbokk yi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw di visiter ñu gën a xam li nga xamante nii ni kooku ñuy wax mooy seen sëriñ muy sëriñ Touba moom la bind dañuy def rek lu dul dugg ci biir ñu xamale ñoo bërëb bi waaye itam ñu wan leen li nga xam ne moo ngi am ci biir exposition bi وجهت وجهي ذا قربي téléspectateur Mafatihul Bichri international ba tey ñu ngi fii ci euh, bërëb bu sell bi di Touba di saytu lépp lu fi jukkee ci ay xibaar ñu leen koy dégtal euh, ñu ngi fi nag ci exposition bu mag bi nga xamante ne nii moo am fi ñu taxaw ak Serigne Modou Mbaye Kane bokk ci euh, comité scientifique bu Hizbut ñu ngi bu baax Serigne ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ci barab bi jërë ngeen jëf. waaw ñu doon laaj rek xam nañ ne Serigne Touba moom euh, bind dafa nekk lu am solo ci ci njàngaleem ndax moo ni karaamati xatu yar yi mais écrits demeurent mes miracles kon Serigne Touba mañ nañ ne la quête du savoir dafa nekk benn élément bu essentiel ci ci yoonu murit euh, ñu bëggoon a xam rek ndax loolu ngeen bëgg a fësal ci exposition yi ngeen di am. effectivement loolu mooy li ñu jubloo fësal ci exposition bi euh, particulièrement nag digganteem ak alxuraan kon exposition ren bi benn thématique rek la am muy Serigne Touba ak alxuraan. ndax euh, ku nekk xam na moom ni nga xam ne noonu la fekkoon alxuraan liggéey bu màgg bi nga xam ne def na ko ci ak fi nga xam ne foofu lu yóbbu alxuraan ndax moom wenn yoon la jaaroon mooy yoonu alxuraan lépp lu mu amit ci alxuraan la ko ame boo gisee diir bi fi nekk ni mu fonke woon njàng ak njàngale mboole mag ñu ko wëral ñëpp kenn ku ci nekk tàggat na la ci njàng ba fa nga nekk lépp lu ma tax xam sa xam nga ko di ci yar sa njaboot samp ay daara ci réew mi mboolem gox yu nekk mu yebal fa ay nit yoo xam ne bu fa yeggee loolu lañ fay yaatal di fa jàng ak di fa jàngale ginnaawam it njabootam gi ko fi wuutu kenn ku ne xam na ni ci liggéey boobu la ñu nekkoon ñoom ñëpp ba ci sëñ Saalum mi nga xam ni xëy na bokk nañu ci ñi gën a ràññeeku ci loolu ndax ak xalifaam ay junni junni dong mokkal ci alxuraan bind ko jàng ko ci ay daare yu bari yoo xamante ni bi def na ko fi mu liggéey bu ràññeeku waaye ñoom ñëpp benn doxin boobu la ñu am loolu nag muy loo xam ni lu mat a jàngale la lu mat a wane la lu mat a fësal la moo tax tey exposition ren bi ñu jëme ko ci diggante sëñ sëñ Tuubaa ak alxuraan ci fonkeel gi ni mu ko doon fonke woon ci jàng fonkeel gi ci bind nga xam ne tey indi nañ ci mbooleem jumtuwaay yi nga xam ne daanañ ko utiliser ci jamono yi bind yi moo xam gaal yi la moo xam àlloo yi wala xeetu xalima yi nga xam ne daanañ ko bind xeetu daay yi nga xam ne daanañ ko bind loolu yëpp ñu fas ko yéene wane ngir wane ci fonkeel nga xam ne joxoon na ko ak Euh, jàngale bi nga xamante ne bi amoon na ci ndax ci pavillon ba la ñu bokk ko waa daara daaray kaamil ñu wane ci ñoom it ay mbind yu bari yoo xam ne mag ñi ànd na Sëñ Tuubaa ñoo ko doon bind kon loolu yi di loo xam ne war nañ koo gis xam ko xam ne ndekk jekk Sëñ waa moom alxuraan moo doon ab liggéeyam ci la liggéey ci la doon tàggal ak njabootam loolu di message boo xam ne dafa war a jàll di ndono loo xamante ni bi dañ ko war a jàllale muy wëy ba ibadan macha allah am na solo bu baax a baax bu ñu déggee say wax yëpp mën nañ ne Serigne Touba daal ni àdduna jaxasoo euh, moom euh, ci mbindam ku ci sukkandiku ci njàngaleem ku ci sukkandiku di nga am solution ci mooy yi nga xam ne mooy assaillir suñu suñu suñu société yi. Euh, tout à fait Serigne Touba moom dafa daan sax ñu bëri ñu ci tàmbalee di yeewu léegi ci àdduna sëpp xam nañ ni mooy solution problème mu àdduna ndax moom weesuwul jàngale yàlla suñu borom subhanahu wa yoote ci woote ci yoonu yonante bi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jël nit ki tàggat ko ba mu jikkowoo jikko yi gën a rafet yoo xamante ni bi muy indi ak texem àdduna indi ak texem àllaaxira ndax lépp loo gis muy yàqu jamono leen rek ko waral mooy soppiku jikko waaye bu fekkee ni jikko yi dëppoo nañu ak jikko yi nga xamante ni bi mooy li alxuraan bëgg tagg ko jikko yi nga xamante ni bi moom la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale su boobaa jafe-jafe du jikko jikko yooyu nag sëñ Tuubaa li mu ci indi ci jàngale bindu ko wane ko mag ñi àndal ñoom dox ci ñi ci topp dox ci tey jii àdduna sëpp ñi ngi tàmbale yeewu teg bët xam ni effectivement kii moo yor solution àdduna bi ndax mooy ki defar jikko yi ci anam bu mën di doon. kon nag loolu euh, message boo xamante ni bii ñun war nañ ko gën a xamaat ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na may ñu taw féexug ñu di ak njabootam bokk ci moom gëm ko ginnaaw àdduna sëpp ñu ngi koy tàmbalee di xam. ba di ko xeeñtu ak di ko gëstu loolu kon ñun ñi nga xamante ni bi ñoo ci nekk war nañ koo gën a fonk gën ci sax saxal ci suñu njaboot. un euh, petit résumé de ce qui a été dit en français. Aujourd'hui, euh, on peut dire que la quête du savoir est un élément essentiel du mouridisme. Et aujourd'hui, comme disait un ami, le danger de notre époque après au fait que nous sous-estimons presque au même titre les dégâts de l'ignorance et la force du savoir. Et aujourd'hui, est-ce que le retour à l'orthodoxie est une urgence euh, mais il faut comprendre déjà que, en tout cas pour la famille de Cheikh cette orthodoxie qui nous invite à la culture du savoir, n'est-ce pas, qui nous invite euh, euh, aux études, qui nous invite euh, à l'adoration de notre Seigneur. Donc, depuis que lui, il a tracé cette voie, ou bien en tout cas, il a réhabilité cette voie, et, euh, ses successeurs, ses khalifs ont tous emprunté cette voie-là qui a été réhabilitée, réhabilitée ainsi que tous ses talibés. Donc, l'orthodoxie, on n'a jamais quitté cette orthodoxie. Au contraire, on l'a à chaque fois propulsée vers l'avant. On l'a à chaque fois rénové comme il se faut. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons euh, pensé mettre une seule thématique, à savoir Cheikh Khadim et le Saint-Coran. Étant entendu que quand on parle du Saint-Coran, on parle de l'ensemble de l'enseignement religieux, des sciences religieuses qui gravitent autour de ça. Parce que lui-même, il a déjà dit que celui qui vous interdit l'apprentissage, sachez que celui-là, c'est un Satan qui vous conduit vers il a écrit à travers ses œuvres. Donc aujourd'hui, le mouride, en tout cas l'aspirant, qui qu'il soit, où qu'il soit, il a cette euh, préoccupation majeure qui est la quête du savoir, à laquelle l'invite le cheikh, à laquelle l'invite Cheikh Khalif et à laquelle aujourd'hui nous assistons à travers cette exposition. À vous entendre parler, nous pouvons dire que Cheikh Hamadou Bamba et même la solution à tous les maux qui assaillent ce monde et la réponse à toutes les interpellations quotidiennes. En tout cas, c'est nous, c'est ce que nous croyons fortement, que Cheikh Al-Khalim est la clé du monde. Ces enseignements constituent la source de référence, n'est-ce pas, qui pourra soulager ce monde de ses turpitudes et de tous les malheurs auxquels nous assistons aujourd'hui. Et heureusement qu'aujourd'hui, cette, euh, cette situation est en train d'être bien comprise à travers le monde entier. Déjà, il y a beaucoup de pays qui ont commencé à chercher comment intégrer l'enseignement de Cheikh Al-Khadim dans leur programme d'apprentissage. N'est-ce pas Des pays occidentaux, des pays qui se trouvent un peu partout à travers le monde. Cela veut dire que donc, ils ont commencé à comprendre que la solution du monde, c'est Serine que dans son enseignement, ils ont que tout son enseignement, euh, toutes ses œuvres que à bâtir un homme qui tend vers la perfection, à cultiver la paix et la tolérance, à cultiver les plus belles vertus enseignées par le Saint-Coran. Et si l'individu parvient à s'approprier toutes ces belles vertus, toutes ces belles morales que nous enseigne le Saint-Coran, mais jamais cet individu-là, il ne va déraper, il ne va euh, sombrer dans, euh, dans les situations que nous connaissons aujourd'hui, mais au contraire, il sera quelqu'un, n'est-ce pas, qui va cultiver la compassion entre euh, les individus la tolérance et la sympathie. Et particulièrement, le culte du travail qui manque un peu aujourd'hui dans ce monde et la sincérité dans les actes. Donc, heureusement qu'aujourd'hui ce monde l'a compris, à nous donc d'être les pionniers, n'est-ce pas, de cette relance et de cette appropriation de Cheikh khadim Et en tout cas, nous, nous sommes sur la voie là. En tout cas, nous souhaitons être sur cette voie et nous invitons quiconque nous, en, à venir nous emprunter cette voie-là qui est la voie du salut ici-bas et dans l'au-delà. Euh, aujourd'hui, l'être humain s'adonne aux pires abjections et quelquefois à des fins particulières. Euh, euh, récemment, on a vu des attaques contre le mouridisme. Euh, un pour ne pas citer son nom, qui a publié une vidéo sur Internet dans laquelle il remettait en, en question les fondamentaux du mouridisme. C'est la raison pour laquelle on part de retour à l'orthodoxie. C'est vrai, c'est Mais de toute façon, qui certainement ne perturberont en rien la bonne marche du mouridisme. C'est tellement insignifiant que euh, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas au courant de cette situation-là. Comme il y en a beaucoup qui sont au courant, mais dans tous les cas, c'est véritablement insignifiant par rapport à tout ce que le chef a fait, par rapport au rayonnement du mouridisme, par rapport à ses enseignements. Je pense que quelqu'un qui sort comme ça, qui fait une de compréhension, certainement, ce n'était pas le meilleur comportement à adopter. Et comme on le voit, si c'est le prophète qui est caricaturé, si c'est le Saint-Coran qui est dénigré, mais attendons à des situations pareilles. Mais l'essentiel, c'est de savoir que nous, en tout cas, nous avons une valeur sûre à s'approprier et également à montrer au reste du monde. Merci beaucoup, Bichir TV, vous remercie. Merci, amani ala